alaikum wa rahmatulah mbokk internet football tv ñu na leen bu baax ziar leen di am mbégte saa su defal leen vidéo pour ñi xamantene do ne chaîne ba leen wax welcome bienvenue abonné leen cliqué leen si cloche ngeen gis vidéo bu ñu ngeen ko salam bu leen tim une vidéo c'est très important mbokk yi maa Sénégal toujours disponible au 77 352 31 01 77 352 31 01 dañu ñëw rek wax si match euh, Sénégal Hollande par rapport euh, ak aké euh, joueur bu Manchester City gaucher Bobu. xam xam nga Van trois défenseurs lay teg Dalic Virgil euh, van Dijk ak Ake bi mu leen wax nii Ake nag ñëw na si match euh, Sénégal bi wax aussi tam si Sadio bi xamante ne xam na ko bu baax a baax du côté de Angleterre que ça soit bi mu nekk Bournemouth que ça soit bi mu nekk Manchester donc xam na bu baax a baax doomu Bambali bi après ñu wax ne Sadio Mané dafa forfait journaliste bi loolu la ko posé comme question lan la si xalaat mu ne lool noonu mosul nekk lu baax donc euh, pour compétition bi mu ne difficile na trop ngay gis joueur di blessé benn par benn waxu sax pour Sadio Mané kese mais blessé nee na ñoom du tax seen état d'esprit changé Sadio Mané nekk fii bañ fiy nekk même état d'esprit lañ bëgg a am état d'esprit bu baax bañ a xeeb Sénégal jouer ak moom comme ni mu waree comme si Sadio Mané moo ngi fa. nee na ñoom dañoo war am performance na match bu métti lay doon match bu du du match bu yomb. bon man li ma waxoon du du du du changé xam nga donc match bi Sadio Mané new fi mais Sadio Mané waru fa ne a nekk rek ñu découragé ku nekk commencé téye sa loxo na non xam nga jarul may jënd maayoo équipe bi yëpp Sadio Mané moo xam nga def lépp nangu nañ li ngeen di argumenté lépp dañ ko nangu parce que ñun ñoo bokk di seetaan ku nekk am nga si sa gis-gis ak sa xalaat par rapport ak Sadio fa nekkee ak bu fu nekkulee donc en temps normal te dis que kii jël deuxième euh, mondial Ballon d'Or kooku nekk si digg dooleem 30 ans xam nga donc nga jàppoon ne ko du monde bi da toj man loolu laa jàppoon xam nga suñu borom def leneen da nga koy nangul borom bi maintenant loolu nag dafa war a tax suñu gaynde yi ñu am beneen état d'esprit parce que ñoom ñeneen duñu changé seen état d'esprit ñun suñu gaynde la fekk Sadio Mané newu fee dañoo war a woon Sénégalais gars yi jërul nekku fi mais dañuy football pour moom dañuy dem ba jeex pour moom dañuy maye le maillot muy le maillot bu baax a baax a baax ndax bu fi nekkoon suñu place dina raw lu ñuy xalaat maintenant nag mooy Ismaïla Sarr ñoom Krépin Diatta ñoom Boulaye Dia ñoo war a jël ay initiative que ça ça même Gana Gueye Gana Gueye sax dafa a jël ay responsabilité match bu mag Koulibaly o Edouard Mendy donc Sadio Mané ne fi mais war nañ ko mën a gérer war nañ ko mën a gérer ak mii nii di wax nii nii c'est un jeune la boy la te moom moo am gëm ci match bi te man aussi d'après ni ma déggee euh, kii di euh, suñu capitaine bi Kalidou Koulibaly dégg Seny Dieng Eh, dégg eh, kii di Ismaïla Sarr pour man sama xel dal na quoi pour man sama xel dal na équipe bi dinañ fighting dinañ def seen kéemtalaay kattan lu ñu mën ak lu ñu mënul dinañ ko def pour am ndam incha allah loolu lu ma gëm la ñun sénégalais aussi nañ ko gëm parce que tamit boo jëlee joueur un par un après ñu dara peut-être da nga tu te dis que am nañu collectif waa Hollande mais ñun tamit ñooy Sénégal comme Aliou Cissé ni mu amul ragal amul bàyyi mbokk yi li ma ne ko vidéo bi maa leen jaajëfal ma ba beneen sur